والقلم وما يسطرون salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu julli mbokk teer bi ñu ngi leen sant di ñëpp kenn ku ne turam ak santam ñaan yàlla weeru tedd yu nekk mu defal nit ndimbal ak tawfeex ñu defe ko ni ñu ko bëggee te ñu tasatee ngërëmam di sant yàlla bu baax di sant samay waajur bu baax a baax man la mu Seck ne ci konku yaatam na alxuraan dëkk Touba Daaru gannaaw ba ma sant samay waajur sant waa daara Sëriñ Habib yépp gis naa seen taxawaay ak mbégte mi ñu am si lii nii fekk ndam li lépp ñun ñëpp a ko bokk di sant sama kilifa yi nga xam ne seen loxo laa jaar lu mel Sëriñ Abo Mbacke Gelongal ak sëriñ Mountakha Mbacké moom mi nga moo mooy jëriñ daara ji ñëpp xam ni mel si man sama diggante ak moom wax dëgg yàlla di ko sant bu baax sant goo xam ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu dool di santaa sëriñ Habib bu baax a baax nax bañ génnee daara ji yàggul waaye gis nañ liñ fi jëlee dañoo génne daal di koy yéeg wax dëgg yàlla ndax bañ génnee dafa mel dañoo génn rek suñu cofee gën a yokk si daara ji loolu lépp liñ fi jëlee xam nga nga xam ak li mu def si ñun moo moo waral lool ñuy sant bu baax a baax wax dëgg yàlla sant mbokk yi sant ñi nga xam ne ñoo doon def concours waaw loolu moom naa sawar a tontu ndax daaw ji xam naa moom jamono yi ma fii ñëw moom année bi moom jàpp ma waaye am naa ab takk-takk daal ndax bu doon fin 2004 tamit 2005 lay doon ndax maa ngi fàttali suñu xarit ba mu fi bàyyi ko boobu maa ngi toll wasam si loolu daa moom ba léegi moom jàpp naa ko moom ba ma ñëwee suñu maxtaar Jóob moo nekkoon daal jamono yooyu moo ma dalal si daara ji fekk am na faneen fu ma njëkkoon jaar waaye yàgg ma fa jox ma ku naan garas ñaana mu jàngal ma ba ma xaw a sori tuuti am ay juróomi isib ak yooyu ba mu fi jógee nag lañ ma jox si na boo Mbàkke gelongal booba léegi moo ma yor ba ni ma mokkale alxuraan maa ngi mokkal 2010 ci fin 2010 bi boobu ñoo waaye waajal waaye date bi jàppatuma ko exactement waaw ba mu mokkale maa ngi commencé sama mbeqi si 2011 bi en 2013 laa commencé bind kaamil 2014. waaw mbeq mi moom su ma nax kii xaaj su ma laa bind ba la tëj dana la tëj dana ba naas nag su ma laa ko bind ma commencé waat alif laam miim ba miim sax loolu moom laa bind su ma la xaaj wax dëgg yàlla bu yeexee ti moom rëccu ma ko ma wax dëgg yàlla gis naa ni mu àndoon dafa daan nañ tari ngoon gi ñett sib marax gi dinañ tari ñetti sib fajar gi daan nañ tari isib boo xam ne day mel ni bind toppaat buñ pare dem jàngi suñ bind beq yi tari ko jàng suñu alluwa yi tari ko waaw bu ñu ba tari topp ko ba noppi dañ koy jàngaat ab lim tariwaat alluwa ci daanañ la sonal ci bind sa àlliwa yooyu ah, damaa bokkoon mm, damaa bokk samay mag yoo xam ñoo bokk benn kër ñu mën a bind lool mais ni mu jaañ ñëpp xam nañ ko ndax daara ji la nekkoon jàngale jamono yi mu nekk nag ndongo yi mu yoroon daa daanaka daaw ñu jug suñu kër bu di si di indi seen alluwa di toppalu di bindlu mu leen bind araf naa loolu bokkoon na ci li tax gënoon bëgg bind si yooyu laa ko commencé woon ngir moom wax dëgg yàlla gannaaw nag bàyyi woon naa ko waaye ba ma demee bay waaj a mokkal laa commencé waat ba ma mokkalee tamit ba commencé beqi woon tëliwu ma ko woon lool yàlla dimbali woon na ma ci tuuti waaye daal mujjoon naa xam ne daal moom sama njariñ la wax dëgg yàlla mujjoon naa ko bëgg lool moom fonk ndax concours yi ñu am amal si biir daara ji yooyu boo ko dee gis say morom di ko jël daan la xirtal boo ko bëggutoon sax ngir lool moom dina tax maam nga nangoo bind loolu nag ñu koy sant Serigne Serigne Mountakha ndax du ci xaalis daal la nga daan defee wala dara ci xaalis boppam la daan génne di ñu ko tegal ci biir daara ji waaw yoo xam yoo xam ne moom moo ko daan taxaw di génne xaalis di ko si def ci biir daara ji di ko jox di ko jox jëmmi beqat ji lañ daan defee concours bi jëmmi beqat ji kenn ku loxo ba nga yor dañ fay tànn dañ fay tànn ay ay kii ay gone maam daa am nuñ ko nose woon noo xam ne loxo yi bokkuñu woon si daara ji moo tax ay groupe groupe lay doon ñu koy saytu première deuxième ba troisième. am na école bi moom waaw daara la waaw lépp mbindum sëriñ son bi ay mbindum suñ jëmm yooyu yëpp si am saag yëpp ci la bokk waaw. lépp moom benn la woon. ñu def concours waaw wax ba ñu saytu ko. xool ko ci jël première wax dëgg yàlla yàlla def na ma daa naa ci bokk waaye moo doon taxawal loolu waaw wax dëgg yàlla ci xaalis boppam di ko sant bu baax a baax dëgg yàlla moom moom taxawaayam daal ñëpp xam nañ ko dëgg yàlla kenn wax dëgg yàlla daanaka si daara ki gën mag ñëpp am cofee moom te loolu moo yombul si ku jiite daara ndax ndongaab saay-saayam faaw moom ngay jëflante ñoom bu doon si yow tamit ñoom dana yor jikko yoo xam ne faaw ngay jëflante ñoom waaye moom wax dëgg ni mel moom boo génnoon fii moom di xool daara ji moom ka gën a ba ci ka gën a mag ñëpp a gis seen bopp ci moom wax dëgg yàlla loolu ñoo ngi ci sant bu baax. ak mot la waaye yàgg moom yàgg nañu def ay concours te yemul ci mbind mi dong dëgg yàlla. ginnaaw bi waaw bind naa bind naa benn kaamil laa bind nag waaye ba ma bindee yaakaar naa 2014 la woon ba ma paree nag laa commencé jàngale. nisif nisif la bind ndax sàpp daara ji moom dajee bokk moom moom nisif ngay bind bu dee këyit gu ndaw ñetti këyit ngay bind moom ngay yemale nisif si bu dee këyit gu mag ñaari këyit waaye nisif si moom doo ko romb moom boo xëyee da jàng sa bind nisif dem tare ji ko boo ko tarijee da nga fexe moom balaa timis moom fexe moom lépp egg moom tomb yeeg na couleur lay doon lépp egg mu yóbbu ñu topp ko boo xëyee am na ko yor euh, ka kaamil li batan boo xam ne ci la kaamil yi nekk kooku moo yor wàllu spécial boo demee mu xoolaat ko soo ko dugal ci mbind mi daa jël ñett kay jox la ndax moom day tegu ci yoon moom doo jël lu ëpp doo bind lu ëpp bi fu Euh, da waaw mel ni moom ba muy njëkk am lañu ko sëñ bi waxoon ndax nañu am na concours bi ñuy waajal sëñ Basiir moo ko ko waxoon ah, boo xamaguñu woon nu muy demee waaye première fois bu moom bokkoon nañ ci déposé nañ ndax bii mooy troisième premier bañ ko njëkkee def maak samay morom yi nekk daal yi déposé woon nañ ah, boo xawoon nañu bari waaye yàlla def ba ñu njëkkee déposé man bokkuma woon ci ñu jàll waaye am na ñaar ñu jàlloon xam ma ñett yoo xam ne ci daara ji lañ jóge yu bokk yoo xam ne ci biir daara ji lañ nekkoon di jàng jamono yooyu yu bokkut ak ñi nga xam ne ñoo ko jëloon waaye boobu ci remplacement yi laa bokkoon yaakaar naa maa ngi tolloon dixième dixième position ci remplacement yi deuxième fois bu mu ñëwee ma bindaat yàlla def soixante yi ñu doon tànn ma bo ma bokku ci bokk ci soixante yi ñu doon tànn. waaye bañ demee defaat test bi jàll ma troisième fois ba mu ñëwee ndax bii sax moom dafa ne mais soo génn daara ji moo tax nar moo woon a bokk waaye sama waajur jigéen moo moo ko yëgoon daa may soññ ci bokk bi dama bokkal dina baax loolu moom gën a yokk ma bokk waaye fasuma ko woon waaye yàlla defal ma gisoon naa lim bi lim bi moom wàññi ko ndax 60 nga jógee fa ñëw ba tarant moom dina gën a waaye damaa gëmoon ne moom ñi koy def moom yaa ngi ñoom yem rek gën la woyoo moo tax ma bokkaat ci yàlla def ma bokk ci tarant yi njëkk a tànn bañ paree ñu demaat kër suñ kër mag bi def fa test yi yàlla def moom defal ma ci ndimbal loolu yombalal ma ko ndax mbind moom bind naa ko ba mu egg ni ma ko bindee noonu laa ko yóbbu amul xoos amul dara wax dëgg yàlla rafetoon naa ci njort ba ni ñu may woowaatee ma bokk nga si final bi ma xam ne daal ins bi moom fi mu fi mu egsi nii moom wax dëgg yàlla moom war na maa def sama kéemtalaay kàttan ndax daara ji moom man koo ko fay waaye wax dëgg yàlla moom war na maa def kéemtalaay kàttan am mu am lu ma ko bégalee ak ma lim ma defal moom man koo fay moom loolu moom xam naa ko baabaa waaye ma bégal ko ndax loolu sama njëriñ lay doon boo xoolee maam concours bi bokkoon naa ci 60 eh, eh, yi ñu tànnoon ba ma ci ñi war a def test bi boobu jàll ma woon waaye boobu moom mooy première fois ma dem fa. waaye boobu mu amoon naaj pression damaa yaakaar sax loolu moo waraloon jàll ma ndax boobu booy bind sa loxo di raf miinoo affaire yi forme woon eggal sax na pression bi day leen moom sumun moom bu ñu ma ko joxoon si daara ji moom damaa jéggi sumun waaye nisif koo xam ne bind kaay nisif nga maam nga mën koo bind léegi nii balaa ineer nga bind ko pause dem jàngi sa xam yaa ngaa sumul wala laata xam ne boo demee fee yàlla dogal moom sumun sax eggaloo ko nga xam ne moom affaire moom ni mu demee waaye yàlla def na bii ñëwaat moom wax dëgg bii ñu génn ni wute naag boobu ndax bii moom jaawoon naa ci ba bii moom danaa xam ni may def wax dëgg yàlla yàlla yombaloon na ko lool ndax bañ demee bind moom yàlla yombal na ko loxuma defuma dara bind naa ko teer naa ko eggal sax ndax boobu ñoo ngi ñu mayoon waxtu eggal naa ko avant yaakaar ba may eggal des na 30 minutes ma eggal di ko toppaat waaye yàlla def na jàpp jàppandal lool wax dëgg yàlla. Euh, avant amoon dëgg yàlla moom amoon naa si yaakaar ndax ba ñu sama mbind ma bi ma bind fee wax dëgg yàlla mboolem mu war a mel mel naa mel na ko seet na ko te sama mbind ma naa fexe moom moom bu bu ma da da gaa yi bind tamit naa fexe moom set moom kenn duma ko gën a def la moom loolu moom naa ko assuré ndax gaa yi moom neexu ñoo dàq bind waaye moom da ngay fexe moom fa ñuy manqué la yow nga fexe koo matale rek. daanaka loolu laa doon def buñ ma dàqee bind bi naa fexe moom mbind mi moom dina set mboolem li ñu ci laaj dana dana set dina woow mbind moom bu bu woowut moom du set faaw ma amee fos waaye loolu daal moom assuré woon naa ko moom buñ ma dàqee bind moom dina set incha allah ma amoon nañ ci yaakaar. bi nga yi nag loolu yëpp. gi ah, ma njëkk am mooy si daara ji la dellu wax dëgg yàlla yëg bi ma njëkk am si daara ji la dellu ndax xam ne buñ demee ba may bokk seen moom yàlla jiital ma si. dara jiituwu si li daara des si man gannaaw ba ma santee samay waay ji yi nga xam ñoo ma taxaw ba ma mën a am lool waaye dara jiituwu ci daara ji ndax bu dul woon ñoom duñ ma dégg sax ba bokk fee bañ may jox lii waaw. sama sama morom moom li ma leen dégg mooy am mbind moom dafa am solo wax dëgg yàlla na alxuraan moom mokkal ko kese te mënoo ko bind moom amul benn njariñ ndax bind moo ko fi bàyyi ba heure bi ndax mokkal kese moom taxul nga mën a bind yax taxul nga mën a bind te doo xool ndax dangay gis ñoo xam dañuy mokkal waaye duñ mën a bind te duñu xool loolu de mbind te doo xool am solo lool wax dëgg yàlla da am solo lool ñu gën ko bàyyi xel gën a fonkaa mbind mi te xam ne moom bu dul lii sax moom ñun dañuy jariñ ndax mën nañ di ci liggéey sëriñ bu baax baax ndax boo demul concours da nga bind kaamil joxe sa sëriñ di bind ay xasiida di ko jox say sëriñ di ko jox ñi nga xemem ci ñoom barke loolu moom rek wax dëgg yàlla jar naa mën bind waaw C3S moom amuñu fayam wax dëgg yaa ñoo ngi koy sant bu baax baax dinaan yàlla yokk ko ba mu yëg ko wax dëgg yàlla mu doon société bi gën a siiw Sénégal gën a dox ci Sénégal te lépp li ndog lépp li yàq rek yàlla mosul ko ci bàkk Seex Xadim aar leen sàmm leen gën leen a barkeelal seen seen yëf ci bàkk Seex Xadim te rafet na njot dina am incha allah ndax yàlla moom kenn du ko liggéey woon sa liggéey neen loolu moom mënul nekk loo ko liggéeyee rek moom dana la sa njort des na wala surveillance bi wala waaw surveillance bi moom bu dee bi doon def dakaar moom boo wax dëgg yàlla jaar na yoon ndax boo fexe nañ moom ñii ñii dende ñoo koy tànn doo gis kenn ku bokk daara ak daara di di dende ndax lool bokk na ci li ma mettoon que si que ndax dangay gis maam daaw bañ demee bind ñun ñi eggalu noonu dañ ne duñ ñu yokkal temps bi ba temps bi feeñ dañ ko feeñ deuxième bii moom dañoo gis moom bañ demee daanaka kenn ku ne boo ñëwee fu la neex ngay toog surveillance bi xaw a des mii gën a nosu candidat yi ñuy tànn maam kenn ku ne ka ngay denn nga ko tànn sa bopp ñu rekee tànnal tey gën a xoolaat nit ndax ndax booba sax man ndax booba damaa eggal avant 30 minutes ndax yow bu fekkee dañ ne la waxtu lañ la appal nga para pare sa mbind eggal waxtu wi jeex ñu ne ñee dañ leen yokkal ñii dañ lay dañ lay gañaa ndax ñoo lay gën a teewlu seen mbind ñoo lay gën a dal seen mbind waaw loolu bokkoon na li ma gënoon a xaw a ñàkk yaakaar sax booba ndax booba eggal naa sama mbind moo xam naa woo na waaye ñii nga xam ne temps bi jeex na ñu leen yokkal da lay xaw a kii waaw loolu daal xam naa bokkoon na dina kii moom anta bi ni'mati rabbika bi majnun